dañ may wax jigéen bi ma invité mu ne ma yu buuba bul ma dagg la moo fa nekk da ngay wax mu dagg la te ne bu ko kenn dagg Pape Djibril alors pour le bilan des 100 jours waaw déjà moi je pense <coughs> suñu waxee bilan rek il faut ñu xool yan élément lañ ciy def mm-hmm. actif passif exactement <laughs> donc yes. il faut ñu xool nan la ñuy apprécier <coughs> les différents éléments d'abord ci plan de résilience bi est-ce que nous sommes résilient ou pas mm-hmm. résilience mooy lan mooy capacité d'adaptation ndax mbir mi bi mu dalee ci suñu kaw dékku nañ ko mm-hmm. te nërmee lu ñu wala déet ñu xool ko ci fànn yu bari daf ci am rôle boo bu mag boo xamante ni médical la waaye boobu ba tey je pense que bu ñuy wax ci mbir mi dañuy wax ne la solution ne sera pas que médicale dafa am yeneen paramètres yoo xam daf koy tenir en compte moo tax on ne parle pas de comité médical. Mhm. on parle de comité scientifique. nga xamante ni globalement. dafay mhm. tenir en compte aspect yu bëri. loolu je pense que wax nañ ko waxaat ko euh, lu bëri est-ce que résilient nañ ou pas c'est une grande question. Mhm. parce que euh, ki fi jóge nii muy Bamba Ndiaye. jamono yee wax nañ ñu dañ ko testé positif. ñu ne yóbbu nañ ko principal. tey ñu ne ñu génn àdduna. boo xoolee léegi ni ñuy annoncé décès yi léegi. au départ qu'est-ce qui nous en fait mooy ñu ne dégg nañ cas communautaire. Mm-hmm. nit ñi dañ doon ñaan comme délibération bac ndax cas communautaire yi. dina am tey wala du am. dina wala du am. léegi loolu pare nañ ci on a fait la paix avec cette histoire. maintenant léegi dee bi sax léegi bàyyeetuñ ko xel trop. nit ñi nit ñuy dee ak vitesse bi ñuy dee c'est jusqu'à quand booba posé woon nañ fi débat et je me. souvien ak euh, docteur Boussock ñoom ñëpp ba bi mujjee suñu plateau ne ko kañ la ñuy atteindre pic bi ak lan mooy pic bi parce que dañu gis ne réew yi nga xamante ni yëpp dañoo dem vers un déconfinement un relâchement dañu wax ne ils ont pensé qu'ils ont appris beaucoup de ce virus la jàng nañ ci loo xamante ni jàpp nañ na sax ils ont dépassé le pire. Hmm. maanaam musiba bi romb nañu ko. Hmm. suul nañ loo xam dootuñu ko suulati te ci recherche ñun sur le plan de la recherche il n'y a rien. professeurs yi ñëw fi yëpp daf koy wax recherche tey jii lan lañ ci jàng laaj nañ ko keroog docteur Bousso mu ne ñu effectivement fi mu ne nii dañ li ñuy jàng mooy li nga xamante ni moom lañuy jëlee ci seen yeneen collègues yeeg yeeg parce que dans les autres pays la recherche aussi c'est une réalité. Mm-hmm. mooy yan ban gis-gis lañ ci am virus bi ban évolution la am ñun du temps d'incubation yi dañ ñu ko importer. évolution bi dañ ko importer donc loolu aussi c un c'est une autre faiblesse que nous avons ci sunu système bi donc est-ce que nous sommes résilients ça reste une grande question parce que xamuñu fu ñu feebar bi jëlee mm. parce que nit ñaa ngi faatu wax naa ko nee ci marge d'incertitude li ci sunu kanam xamuñu lan la effectivement cas positif yi ñoo ngi yokku à chaque fois bu ñu testé on en a plus mm-hmm. c'est jusqu'où donc loolu rigoureusement il faut que ñu dimbali ñu ci loolu kañ la ñuy courbe bi di def nii di wàcc jëm nii nga xamante nii dinañ ci am expérience parce que résilience dafa am une incidence financière dafa am coût mm-hmm. dafa am lu muy jar bu nit ñi waree xëy jàngi dootuñu jàngi ni ñu doon jàngee jàngi boobu dafa am leneen lu mu laaj mm. bu nit ñi waree dem tribunal malal wax na ko léegi visite ca ca kii ba ca prison ba dafa am leneen lu mu laaj donc y a une incidence financière mm-hmm. donc est-ce que nous sommes résilients ou pas c'est encore une grande question léegi la relance nag lan la mm. le président de la république ci communication bu mujj c'est lui qui nous parle d'un nouveau programme de économique mm-hmm. ne ministres yi ñoo ngi ciy liggéey mm-hmm. sur la base de ce nouveau programme ci la ñuy xam fan la ñu jëm parce que il faut pas qu'on rate la planification dans cette affaire là su boobaa nag ñu do ñu wax ñu nee ñu kat euh, lii mooy les prévisions de recettes sur les trois mois mhm. wala trois prochaines années yi nga xamante ni ci la ñu jëm daal di ñuy wax ne combien d'entreprises ont survécu dans cette affaire la ak ñaata ñoo ci faatu daal di ñuy wax ñaata emploi lañ ci conservé ñaata lañ ci perte ba pare daal du ñuy wax aussi la dette intérieure mm. l'état de la dette intérieure tey jii fan la toll léegi nag loolu suñu ko wax suñu ko xamee ce sont ces éléments là ak yeneen yi nga xamante ni dina bokk ci secteur stratégique bi parce que le coronavirus aussi nu renseigne sur les ministères ministères clés yi nga xam war nañ leen a renforcer sur les secteurs clés yi nga xamante ni war nañ leen renforcé et on parle du foncier l' rek moom moo mën a porter li nga xamante ni bëgg nañu ko j' que duñu commettre at erreur yooyu nga xamante ni def nañ ko depuis 60 ans l' agriculture la pêche l' élevage l' il faut qu'on en parle je suis d' accord avec euh, Soxna Aïda Sougou mais encore une fois man week bi rek maa ngi woon Ziguinchor mm. encore une fois il faut que ñu wax ñu agriculture aussi lan lañ ci bëgg ak fan lañ bëgg ñu yóbbuñu ñun li ñu am ci àll bi ci kaw gi du agriculture c'est de la paysannerie mhm. l' agriculture c'est autre chose boo xoolee tey jii quel est l'un des rendez-vous les plus attendus en France lan la c'est le salon de l'agriculture oui. Mm. mais ci seen dernier salon de l'agriculture dañu wax ne léegi 6 pour cent de paysannerie la ñu dese gis nga évolution bi mais ñun depuis ñu nekk xale dañuy jànga dañu 70 pour cent mm. de la population active agriculture la ñuy dundee loolu lañ ñuy wax mais paysannerie la mooy loo xamante ni bay bay dundee la mhm. ak bay wecc la mhm. waaye l'industrialisation mënu mënu agriculture foog nga produire foog nga investir foog nga transformer mhm. foog nga ek bala ngay prétendre à l'exportation donc il y a de grandes questions yoo xamante ni aussi aussi bien le conseil économique social l'assemblée nationale il faut que ñu cuisiner les ministres en charge de ces postes là pour ñu xam en réalité fan la jëm ak lan mooy le nouveau programme de développement économique parce que je pense qu'on ne parle plus du PSE waaw oh, oh. waaw mais euh, xam nga c'est tellement difficile <laughs> euh, ajjuma bu nekk ñuy ñuy wax benn mbir ajjuma bu ne nga war a génn fenn parce que ajjuma bu ne situation bi dafay xaw a ma man dama bëgg ñu ñu déjà bañ